Assalamualaikum Senegal, senegalay fu ngeen tollu ci aduna jëm ji xarim la tuddu Gueye la sant yeewoo fi ci Italie di len nuyu fekk len fu ngeen tollu fu ngeen nek ci globe bi ci bureau yaak ci auto yaak ci keur yaak ci mbedd yaak fu ngeen tollu fekk na li fu leen jëb loxo bi nuyu leen niñ koy defé samedi bu nek ñew fi wara waxtaan ak senegalay ci li nga xam moy actualité bi nga xam ne moo xew ci senegal tey nak amaat ci koo xam ne si réellement ah, ba muy metti moo fa nekkoon man mii xam naa ci dara ñun ñoo fi nekkoon tey ñëpp a ñeme tey moom wax ji bari na tey yuux yi bari na lépp waaye bu muy metti ba kenn ñi mu loon wax ah kii may invité tey di sama jarbaat ngeen koy dégg ci àdduna programme bu ñu ko invité da ngeen ko dégg sama nijaay Xaadim Gueye bu ma leen waxuloon kan la sax da ko xam mooy kura bu Macky Sall kura Macky maa ngi lay nuyu sa nijaay mu ngi lay nuyu di la ziar xam naa ne yaa nga ca Las Vegas suñu toll foofu laa lay fekk ne la jàpp loxo bi invité la tey war a waxtaan ak yi kura na nga def sama nijaay maa ngi lay fay di la namm di la ñaanal yàlla amiin moom nga xamante ne ni mooy may jàmm yal na ko yàlla may tas ko ci àddina bépp di ñaanal sénégalais yi di ñaanal ki yàlla teg amiin Sénégal ci boppam boobu muy président Macky sàll di ko ñaanal yàlla yàlla yokk ko wér mhm. ak dëgërlaay mhm. yokk ko muñ ci li ko dese ci boppu réew mi xam ne yàlla ko yan ay nit ñu dëgër bopp waaye macha allah fa tabarakallaahu xendol na ko bay bàyyi waaja pare toxonam bi mu bi mu serve sénégalais yi ñaanal nag kilifa diine yeeg yu aada yi sama nijaay di leen wax ni ñoom duñu jóg ci di leen raamal ndax mhm. seeni maam ñoo ko fi liggéey mhm. raamaluñ leen ndax nit simple lañu rek mais dañ leena ramal ndax liñu xex ci Sénégal ba tax ñu am suñu indépendance bi tay dañ cee bok ñom ndeysaan waaw. Ah, jërëjëf di wax rek ni nak sen Sénégalais yi maa gogu kure Maké gogu sen kure la man may député peuple bi sama ni jaay honorable kure Maké ngi nonu waaw kay sama jarbat waaw kay nit ko xamné si mom kenn du len ko présenter ci Sénégal ci aduna bi ku ñuy wax né kure Maké rek ah, war ñoo xam la dame de fer mu la koy wowe du maye dara. amul lum ragal a wax amul kum tiit amul ku ragal kura del si nag te tey ci actualité ñu dégg Ousmane Sonko mbi doon taxaw fii ne téeméeri Macky Sall mënu koo tëj bu tëjul Macky Sall téeméeri Macky Sall ak ay juge mm. am ak ay policier ak ay gendarme mënuñu koo tëj yàlla tey ji won na Sénégalais yi réponse boo xam ne si sax jarul commentaire ma nga ci biir foofu nga xam ne si mooy fa ñuy denc doomu aadama yi nga xam ne si ah yoon àtte na leen ok mhm. démb nag ñu dégg fan yëpp ñu ngi dégg depuis vingt cinq jours ñaar fukki fan ak juróom mhm. kura makki ñu ne Ousmane Sonko moo ngi ci euh, grève de la faim mi ngi ci diggante dund ak dee démb sax dégg naa ñu ne mu ngi ci coma démb ñi nga xam ñoo nekk ci yeewi askan bi biñ jógee ca Touba dem ci sëñ Muntaxa mi nga xam ne fekkiwu leen laaju leen woowu leen ñoom ñoo dem wëri ko dem ba ca moom toog ak moom hmm? wax ak moom mu wax leen la nga xam ne mm-hmm. mooy rôle bi nga xam ne moom mooy euh, rôlu xalif li mu war a def rôlu kilifa def na ko wax na ko ñaan na ko yóbbante ko ci ñoom ñoom bañ dellusee premier jour ba dañ ne gisuñu ko ndax bëggoon nañ taxal son excellence mel ne Macky Sall moom mooy décidé ku ñuy gis ak ku ñu dul gis ak yooyu yëpp moo na ca clinique ba yëpp yooyu yëpp nañ ko bàyyi mu jàll mais li gën a grave mooy dañ ko jóge démb ñu ne gis dañ Ousmane Sonko mais Ousmane Sonko xàmmeewu leen ndax mi ngi daanaka ci euh, diggante dund ak dee dégg naa sax ci réseaux sociaux yi ay nit yu ànd ak moom ñu génn ñu ne dugg na ci coma démb léegi nag bi ñu génnee def conférence de presse bi def naa ne déglu nga ko ni ko sénégalais yëpp déggee loolu laa bëggoon wax ma ci sa xalaat avant tout ñu wut nuñ ko développé pour sénégalais yi mbir yi gën a leer parce que xam naa ne yow ragaloo dara te xam nga lu bari waaw. waaw sama xalaat ci affaire Ousmane Sonko. Mhm. avant may ñëw ci yeew seen bopp ci benn benn béréb mënatuñu dem mënatuñu dikk xam lépp bëgg manipule manipuler sénégalais yi mais sénégalais yi léegi comprendre nañu yeewi askan wi lan la ñuy jéem a jouer ci Sénégal benn sama jaay Sonko grève de la fin août Sonko yàgg na wax sénégalais yi lu mu defut yàgg na wax sénégalais yi lu mu gëmut benn mbir nag dafa am ba ma gisee Sonko jóg la xam ni du nitu fit nitu fitna la Sonko su toogee tey mu ne sénégalais yi moom dafa grève de la faim man defuma nii chaud nii froid na ñu ngi lekk suñu yu baax cere laa ndekkee <laughs> sonko nañu may suñu jàmm mm-hmm. sénégalais war nañoo xam ne waa mm-hmm. du sénégal la bëggal fitna la bëgg indil sénégal ak ñi mu àndal mm-hmm. ñoom abib si abib si keroog ba ma ba ma weddee abib si sénégalais yëpp weddi ko mooy doomam di ko filmer muy wax ndax doomu jàmbur yi ñu ngi yëngal moom abib si du référence du maarul bu baax mm-hmm. boppam la bëggal ak njabootam mm-hmm. Aïda Mbodj mm-hmm. mi ngi fi depuis Senghor ban monument nga gis Aïda Mbodj tabax ko Sénégal lan nga gis lu Aïda Mbodj defal sénégalais yi bu dul wax ju bari ak bëggal boppam sama nijaay il faut que yi yeewu Sonko dafa nekk ci rolu baal ma actuellement nii mënatul dem ñoom lii lañu bëggoon gasal ko kàmb gi ci kanam wax nga wax naa defal ndànk sonko sonko di tëb di dal ba surux ci kàmb gi ñoom ñëpp ci kontaan ñoom ñëpp kontaan li ñu ko téye nii dañuy sóob politique la ñu nekk ñoom ci politique la nekk sonko na senegal yi gëm ni manipulation lañuy ñuy def xiifalul dara jotu ko nijaayam jooju di jibi moo ko yóbbul añ ak reer ak ndekki hmm. sonko ngi lekk dara dalu ko hmm. askan wi la ñuy hmm. pour nit ñi génn ti dee te nit ñi taay nañ ci dee bi na sénégalais indiwaat seen xel ci seen bopp sonko ak ñi mu mag yu màgget yu yàgg yi depuis <laughs> ñoo ngi ci politique bi ah. kàcc dong la ñuy def Sonko kenn terewu ko lekk sama nijaay. kenn terewu ko naan. Sonko sonn nañ ci moom. na dee. yaa ngi lekk di naan maa ngi lekk di naan ay Aïda Mbodj mu génn. boo demee di démb dibi la reeree. ñoom buggaan gay dani ñaw bëgg a récupérer xalay band yi nekk Pastef. kenn bëggu ci Sonko. Sonko lii lépp xamal na ko jabaram yi nag. moo tax génnalu ma leen. Mm-hmm. lii rek lañuy ñuy mën a def nii dong lañuy ñuy mën a defee sama nijaay. Mm-hmm. donc euh, mm-hmm. ba nit ñi di dee li ngeen ko wax yëpp. loolu rek ngeen ko mën a wax. ba ñuy lakk station jàmbur yi kër jàmbur yi. xale yi di dee. nit ñi liggéeyuñu. ana fan la gi nekkoon. fan la nekkoon. moog di boor beneen wujj bi. wujjam Ousmane Sonko nag moo leen yónni. Ousmane Sonko mo yoni ay jabaram pap ale benen djeg bi tekki won djeg yele djeg ah. bu mag ba pap ale di dem djeg jabaru Sonko yi mm-hmm. ta ñew jox décision bobu jabaru Sonko yi te Sonko waxuko Sonko mo bëgg Macky Sall bal ko Macky Sall moomul justice mm-hmm. wul justice momu mm-hmm. ko ci lu wër dafa juum nak xalé la nak mu juum te dañ ko wax lo looloo tax tunkara Mm-hmm. Akhenaton mm-hmm. ñoom Jiji mm-hmm. ñoom Kaay Fof kenn yónniwu leen kenn faalewu leen fii lañu war a démissionner baax buñ noon ay gor ba Sonko bëggee ay jabaram la yónni yónniwul ay dëmbooj yónniwul Habib si ay jabaram la yónni ñun nag jabaram yi li ñu wax dawul suñu yaram ñi mm. dee ñoo ëpp sonko di dee deelu di manipuler waat askan bi pap ale ñaan li mu wax ni ñëpp dégg nañ ko xiifaluñu mm-hmm. askan bi la ñuy e. manipuler sonko su mënee na dee tey ñu mm-hmm. xam ne xiifal na mm-hmm. mais kura ju fukki fan ñaar fukki mm. fan ak juroom ban doomu aadama mu a toog lekkul naanul mais ko xel da ko nangul sax heure bi waroon fekk duñ wax naan ma nga ca diggante dund ak dee mais ma nga woon ci alaxira Sonko dara dalu ko dara Sonko demu fi fii ba ba Casamance di malaise malaise lu dañoo tourné dégg mu naan maam jaara faam ak Aïda Mbodj ndax bëggu leen ci yoxos yeeg paañ yi <laughs> waaw bi Sonko yàgg a manipuler sénégalais benn ah. sénégalais seen yaram dawul we don't have any mercy for Sonko Sonko na bàyyi sénégalais yi tëdd pen bi mu tëdd comme ni ko doomu sénégalais yi tëddee ci kaso boobu gënul kenn homme politique rek la bu lakkal sénégalais yi sénégalais ngi ne nekk ci jàmm mm-hmm. sonko ñi moo àndal torturé nañ sénégalais yi mm-hmm. saaga nañ leen ak wax yu ñaaw mm-hmm. sama nijaay yàq nañu sénégal jikko yi doon nelaw yu bon yi sénégalais yi am sëriñ Mountakha ñi ma meere mooy ñii jël yeewi askan bi di ko yóbbul sëñ Mountakha sëñ ah. Mountakha moo fi sëriñ Touba nañ ko jox respe waaw kay ci lu wér may mun a bu tas mu yàq moomu gelu gaa yi hmm. <laughs> moom ba mu toogee ni sëñ Mountakha daf ko yoreel ah. waruñu woon a jël sëñ euh, may mun a gusa di ko yóbbaat ci sëñ Mountakha dañu war a jox sëñ Mountakha respect réew dañ ko war a jox respect hmm, hmm, et puis li ñuy def bëkka néeg yi ñoo ko war a arrêté saaga yi nii saaga sëriñ Mountakha bu leen mettiwul ñun metti nañu naqari nañu Mm-hmm. du lu ko wax lu ko naqari ñu jóg di ko métitlu mm-hmm. ñoom ñu jël ko jël ñooñu di leen yóbbu ci sëñ Mountakha du seen moroom mm-hmm. mag la mus euh, euh, euh, kii Bousso Maymuna Bousso dafa tekkiwul dara Maymuna Bousso day Gërsa Kura tekkiwul dara ci politique bi Maymuna buso dama lay wax ne la benn femme la ex miss xam nga ko sant Bousso fam bok bu fa topone waye nenañ guuy dana jur ay dekk moy loolu fam bok bu fa taxone taxaway taxaway bobu du won def ay miis ak yu ken xamul di ci dugg choko bobu nak lam sekkon ak sonko deng ko fi moo ana ah, jamanka be amon nañ fi bri bi bif bu ngand ndax téléphone am bam yónnee won message nan sonko chocolat sama chocolat bi nangam nangam mom lañ koy. ban gi mooy politique di woowee benen góor choko soko jabaram jot jigéen mooy politique di woowee ay góor soko moom daal mooy gelu gaañi wax la fi nekkee dóorut fayiwut moom may mun a bu sa sañse hmm. toog toog charme waa te ak a yabaate ñàkk jom ñàkk fulla du femme valeur amul valeur dafa bokkoon ci list député yi ñu ñuus ko ci bitti looloo ko metti nag mi ngi noonu voilà sëñ Muntaxa du moroom am mhm. nee mm-hmm. naa sénégalais yi xiifalu mm-hmm. yàgg na manipuler askan wi dee mu jël doomam yóbbu yóbbu ci tubaab yi ñu jàng ay doom ay jabaram génn di soxo soxo mm-hmm. ci kaw sénégalais yi ah. mass wuñu waa Casamance ah. ana jamanka wax na ba pare tuddul Casamance Casamance ña fa dee bari na doomu jàmbur yi maa doom doomu ah. jàmbur yi dee ni accidenté nak sonko sonko di ray di dem rek hmm. ni yobou ko kasso sama way loh, woo jabar yi yoni len di balu marem fay ton demal nga nani poson nga dee <laughs> tunkara demal nga nani poson nga dee <laughs> yalla ngi len di sonko ko ndayam ñoy ñaan ngi len di bugal amul lum len may ke sala amul lum len may mais kura kura ma, marem fay sal ak Macky hmm. Sall dañ ci mënul dara Macky Sall pouvoir am nee naan dafa am fu mu Macky Sall buñ la tëjoon ñu tej ma nga teud genn walu pen ba Macky Sall may nako pouvoir ci suñ constitution mu gracier ki nga xam ne si atte nañ ko ba noppi mais ku ñu atteegul nan la la Macky Sall surtout loo xam ne parce que ñi ngi koy ñi dañuy jaxase Sénégal en général kaaw Karim wadd kaaw xalifa Sall du benn ak kaaw Ousmane Sonko Ousmane Sonko da Karim Wade violeur voilà bu ñu ko jiiñee sàcc it ñoom it neen ñoo xam lañu lañu lañu la ñu defante ba jiiñante sàcc voilà te affaire d'état Khalifa Sall bu ñu ko jiiñee sàcc ñoom liggéey nañu ca yëf ya ma seen xel màccante nañu ba xam lu sàcc am kii nag jigéen moo ko viol mu kàccal doomu aadama ñëpp teg ci seen bët yi gis ko sonko musuta wax dëgg mm-hmm. te du wax dëgg ba muy dee mm-hmm. te sonko bu ko génnee ci ay tappale mm-hmm. war nañoo mën a ñi ci biir bi mi ngi donc euh, bu fekkee ne grève de faim rek ñi ci biir bi kura bu grève de la faim ñu mu mais ñi ci kasso ba nañ teud 20 jours ñom tamit ñu bàyyi leen par force parce que carte d'identité Sénégal lañ yor comme Ousmane Sonko ñoom ñëpp a yem voilà Baara Ndiaye dafa xiifal Baara Ndiaye na dee bara ndjay ba muy fenal nit ñi fi wa ba muy sosal doomu adam yaak gor ñi fan lañ nekkon ci wal fajri ge bara ndjay lu mu yakul doomu adam yi daf ko fàtte Baara ku lu mu xamul sax sos na sama yaay la tuddu sama papa la tudd hmm. samay mag la tudd kura maki maa ngi xaar ba mu waxati mhm. tudd samay turu famille noonu la ko jàppee woon ñëpp di ko seetaan ñuy wax tey ci Baara Njaay naa fekk yi Mara Ñas bu ma génnee ci moom ah. dina xam ni génne naa ci moom dóorkat bi bu mag Baara Njaay di saaga ku ko neex di wax lu ko neex sosal na nekk makaanu Sonko premièrement di wut xaalis xam ni Sonko ay doomaraam la yor mm. yuy cotiseloo xaalis moo tax ay ñoom maara ñaa ñi ñëpp maara ñoom ñëpp ñëw di dugg mm. di gën a yàqal Sonko mm. di gën a wax lu bon mm-hmm. di saaga ku ne nañu xiifal ba dee ci kaso bi ñu leen ñi dee ci réew mi ëpp leen foofu maqaama mm-hmm. suñu yoon newul ci seen grève de la faim. mi ngi yi. mi ngi nekkate ñemewuñu kaso du ñu góori yàlla. ay tapet la ñuy wax nga ay ñemewuñu kaso. loolu laa laaj kuréel démb maa ngi dégg Habib naa naafeq bi paabu dem ba bijaaw toog di di di sos li gën a ñaaw nee na Ousmane Sonko grève de faim bi muy def héros la ci héros. héros lañ koy wooye loo xam ne diine da koo sib moom bu boppam ñu ko doon wooye ku sell gi ay nit di fi def grève de faim mu din leen ci tax suñu diine bëgguñu ko nee na lii muy def héros la ci est-ce que xam nga loolu dafa ñaaw te loolu bala may bala may ñëwaat ci question mooy man li ma gën a metti gën a metti sénégalais yu bare voilà ko di di Habib Sy bëggul Sonko ci politique waaye da koo faale Habib Sy dafa compter dara mën ba boog ak ñàkk xorom bi ñàkk xorom conférence de presse boo xam ne ñaar ay nelaw la nit ñi doon def alal ji ñëwul Habib Sy day yàq nee naa la mook ay dëmboo dañoo yàgg ci yëf yi. waaye ca Senghor laa la wax juuf ab Ablaye Wade ba ci Macky sàll mii ku ne langal nañu la ko léegi sonk lañ ko bëggoon langal pour survivre dundaat encore mais ay mag yu dem ba ñii lu ñu amul woon daañ ko amati tey di seen benn tànk mi ngi ci yo mi ngi ci bàmmeel ba ah, ñu toog di fen di seen rangoo ñi naafeq yooyu ñuy def ah te Habib si ak kii ah Aïda Mbodj gisul sax Sonko dem ñëw fii di jooy ma ngay bëgg a dee xàmmeetuñu dugg na fii genn kërëb kërëb li ma ci gën a naqari mooy sëñ Muntaxaa déglu ma sëñ Muntaxaa mi nga xam ne ah. dem nañ ñu interpellé ko ñoom ñoo dem ba ci moom te dégg nga fan yi lu ñuy wax wax ju ñaaw ju ne nit yi Ousmane Sonko yi wax nañ ko sëñ Muntaxaa mi ba ci tàndarma joo xam ne ah leer na ma ñoom ñoo fa yóbbu tàndarma ja sëñ bi ñaan ci andi ko ñàkk wërsëg ak ñàkk liggéeyu nday sonk moo tax jotul ca tàndarma joo di ko lekk tey jii lu ne ñu ngi ko koy wax bu ko lekk i sàll ak Marème koy Sall ñoom ñoo def tàndarma ji gisoo ni ñu ñuule ay saafara du n'importe quoi lu ñu waxul sëñ Muntaxa tooñ ko tooñ ko ba toññer bi ko dañ ko fàtte ndax mbirum Sonko bi sëñ mun Muntaxa bu dugg ci woon ñoom ñoo dem wuti ko ñoo dem wut seen euh, rendez-vous ba dajeek moom mu recevoir leen heureusement daf leen recevoir ci kanamu public ñëpp di dégg li muy wax te sëñ bi neen leen bu ngeen demee na ngeen wax la ma wax waaye dañoo gis Pape Alé gis nga ba mu génnee ne sëñ bi nee na Sonko na lekk tàndaram yi dafa exiger ci Macky Sall pour mu libérer ko est-ce que lii wax la xam nga sëñ sëñ Muntaxa waxul loolu ne du du wañ mënul wañ loxo kenn mooy hmm? waaw ñoom dañoo war a am xel mu dal te ba président Macky Sall amul ci ñoom soxla dañ na faale waa opposition boobu ñu bëgg a rey Sonko ñoo ko bëgg a jekkali <laughs> ñoom dañoo xamul ñiy wax ñoom kaay foofu hmm. ñooñu ñoo bëgg a rey Sonko ci boppam <laughs> dafa ñëw baara seen yoon ñu nekk fi depuis mille neuf cent un lu ko dal ñoo ko ñu ñëw baara leen mm-hmm. xam ni moom dof la mm-hmm. ñu yebal ko sacrifier ko mm-hmm. fu mu nekk nii bu ñu sañoon mu xiifal Sonko xiifalul mi ngi lekk manipulation bi moom jàllatul ci Sénégal la gëmuñu ko te bu ñu génnee Sonko nii mais ku ñëw ñu génne la Pape Alé kàcc na góor jigéen bu mu mag boobu kàcc na ba ñu génnee ko yàlla weer ko ba jaxate génnee ko kooku moom ay waxam dafa war a teg man dama jubóog ñoom parce que li ñu bëggaloon sonko dañ ci daxolal sonko daf ci dal du Macky Sall mooy noonu sonko ñoom sonko ñooñu muy àndal ñoo ko bëggal lu bon bugaan ngay dani fan la mënee bëgg sonko te bañ sonko dëggantaan li may wax nii bëgg récupérer waaw parce que fii di wax lii dafa kontaan ci jàpp bi ni jàpp Sonko. moo ci bëgg nag moo ba bëri dem la doon wax ay dëmm lañ foofu nangam nangam léegi moo ñëw bëgg nekk naan day dëgër tey Sonko la jaay Macky Sall def fi Sonko bu bees bi ak ñàkk xoromam moo Habib si xaw ko ci gën a ñàkk ko dafa créé na façon bu pour ñu ko pour ñu jàpp ko voilà mais duñ ko jàpp waala wuñ ko bugaan day jiñ na fi Mansour Faye loo xamante ne ni Mansour Faye mënoon na ko porte plainte fixé la bëgg te amu ko bugaan ngay dani ñetti jabar lay yor ku yor ñaari jabar sax doo yor sunu dëkk waxantuma la ñett jabar ah, jabar sonko yi won nan leen ko ci toogaay bi nu toog pap ala ñaa góor jigéen ba ah, ah, ana la favoriser ba <laughs> di mu toog suñu jànq ba di góor mu <laughs> toog loolu rek wan na la ni eh. borom ñaari jabar mënut a nekk ci suñu réew mi li ma la war a war laaj dafa bari bàyyil ma Pape Alé Niang fee te kenn faalewu ko Pape Alé Niang dafa bëgg ñu jàpp ko pour mu xaru ñu ne Macky Sall la ko rey nañ ko bàyyi fële moo buggaan talu mu leen léegi li ma la bëgg a laaj mooy Habib Sy nañ dem si doon démb Habib Sy nee na mi ngi jaxase opinion nationale bi nee na Euh, ci conférence de presque bi xaadim du fen li ma leen di wax bu ngeen ko dem leen ngeen déglu ko moo ko waxal boppam nee na ñu tëjee Ousmane Sonko ci la booy yi di jël gaal yi di dem kuréel loo wax ci loolu <laughs> kii dañuy dañuy jàpp Sénégalais yi quoi kii mooy naaf bi jaawam bi hmm? sama benn vidéo maa ngi laaj mhm. Sénégalais yi ñu gindi ma mhm. ci Abdou Diouf a jaay géej gi wala Senghor a jaay géej gi mhm. wala Ablaye Wade jaay géej gi wala Macky Sall a géej gi mhm. ku ñëw ñu ne yaa jaay géej gi ku mhm. ñëw ñu ne yaa jaay géej gi Aïda nee naa la lu yàq Abib Sy ko wax Abib Sy ci la bokk noonu fu ñu munta tooy la seen poos munu fa fees dañuy yàq Barça wala Barsàq ci Ablaye Wade la commencé la ñu génnee boobu tur slogan boobu ci Ablaye Wade da génne ay Aïda Mbodj naa fekk la Aïda Mbodj li ma ko wax na ko def jeexal na ci politique mm-hmm. na leen di jaamu yàlla di julli par ajuma moom Habib Sy borom xool nan lay xoolee li ci bon ko suñu borom mm-hmm. ba politique bi ak ñun ñu bees ñii mm-hmm. ñu xam lan la Sénégal di doxee Habib Sy osam muy muy liddeeku noonu moom amal Habib bu ma ko waxee àddina tas muy liggéey ko noonu def jeeg escroc escroc dolli ci escroc vingt-huit millions ci benn oto bu yàggul rek mooy Habib Sy moom ak bijaawam toog de ak tagal mbaxana mi nag ah ne day non mais ci dañuy yàpp sénégalais yi ah Habib Sy dolli waat na ci beneen kura Habib Sy dolli na ci beneen nee na opinion internationale lay waxal CEDEAO ak euh, opinion bi daal ak mm-hmm. union européenne ak ñëpp lay waxal biñ tëjee sonk ñoom dañoo mel ne yëgaluñ ko seen yaram mais bëggoon ko xamal benn affaire que ne ñooñu organisation yëpp dañu am seen ay ambassadeur yu nekk Sénégal donc seen manipulation yi xam nañ ko jarul jarul leen ñu yëngal lenn di ci def dara mais gura li ma la bëgg wax aussi Habib si ci biir waxam démb nee na Déthié Fall nekk foon Gakou nekk foon Ahmed Aïdara nekk foon représentant pur bu nekk foon lima lima lima lima lim lim ñoo ñëpp ci yooyu askan bi ñoom ñett ñoo ne foon cumm ak les extra yi Barthélémy Dias yi wax yéen ne woon ca gannaaw kenn xamu leen mais ñoom gannaaw déglu ma rek déglu ma ba àggale après yow gis nga ñooñu gannaaw ñoom ñoo faalewul Déthié Fall Sonko jaralu ko bàyyi voyage am Gakou ma nga ca voyage am xaw ma nga Dakar ci nu mu ko ni ñu ko waxee bu piir ba nee na kii kee daf doon jàngale moo tax amul woon jot ñëw mais bu dee sonk mi ngi ci diggante dund ak dee bay dugg coma ñoom jarul leen bàyyi seen voyage ñëw taxaw déggante waaye dëcc faal ak gars yi yëpp ak sa collègue boobu waxoon wax ju rëy ji borom euh, Thiès. Hmm? ñoom ñëpp gis nga leen fa. Habib mm-hmm. Sy euh, Aïda Mbodj Maïmouna Bousso ñett ñi nga fa gis ñu toog ñoom ñoo def. ñoo dem Touba ñoo tu ñoo tëgg seen sabar ñoo ko feccal seen bopp ko voilà mais gannaaw ñuy faale wu Ousmane Sonko mais opinion internationale lan la ñuy faale Sonko Sonko débb nañ ko ci niveau boo xam defoon na ne kenn ñemewu koo laal ci àdduna bi taxaw na fii ne téeméeri Macky Sall ak ay ay alkaatem ay jugeem mënuñu maa tëj bu mu leen tëjul man tey ji ma ngi ci. nu seen loolooy seen gàcce na hmm? Hmm? loolu. waaw. loolu mooy seen gàcce tey comme ni ma la wax rek sànq mhm. dañu jëloon xale bi mhm. ñu def ko xeexukaay ñoom ñëpp ku nekk sa mer ba nga meroon nga wékku ko sonk muy tëñëx tëñëxi di dem <laughs> dafa ne yàlla la mhm. Union Africaine lan mooy seen yoon ci waaju ñëw di terroriste mais sonk li muy def àddina bépp ñu ngi koy gis ñoom buñ defee danoo yor sen làmmeñ di wax mais nit ñi ay borom xel lañu sama nijaay mi ngi non mm-hmm. du du du Habib Sy mooy toog mm-hmm. di titel sénégalais di menacer état mm-hmm. bi ndax état bi xam nañu kan moy Habib Sy ñàkk jom Habib Sy lekk rek la la moo moo moo nekk ci xelam ni escroc lañ ko japp ni mu def ba Sénégal un escro ay dëmbooj ay dëmbooj ñom ñep ay escro lañu ay marché la ñuy wut mm-hmm. ay alal ci kaw sénégalais mm-hmm. xale yi ba ñu yàggee dem ci géej gi dafay yàgg benn phénomène la bu ah, génn du Sénégal rek mais bu ñu sañoon benn doomu sénégalais du génn mm-hmm. démb rek laay dugal ci sama groupe bi koo xam ni ci yoonu suuf bi la jaar Brésil ñëw dafa dof nekk mbedd New York yi dof dinaa la ko yónnee Abib Si nee te bari nañu dof ay Italie Habib Sy nee na projet Sonko bi amatul boo leen koy wax sénégalais. Ah. ñu naan waaw Khadim Gueye dem na ñëw na tabax na ay immeuble. loolu mais wërsëgu Khadim Gueye la. mën nga dem te doo am. senegal am na fa ñoo xam ne kuréel mosu ñoo xam fu aéroport aéroport fu mu féete boo demoon fëgg leen ñu dugg génne la cinquante millions wàññi la nga ñoŋ loolu mooy lan. su wërsëg bu ne fa ñoom dañuy gën a xale yi bëgg xale yi di gën a dem di gën a dee. ku ci am visa ñëwal bitim réew dugg ci avion yi waaw ku am visa na ñëw. waaye dama leen di seetaan damay jooy parce que dama xam ni ñii xamuñu li ñuy def. benn tubaab. Hmm. du yebal eh, doomam ne ko demal Afrique. Hmm. Eh, nga dem liggéeyi fa. Hmm. danoo liggéey seen dëkk bi àndandoor yaru liggéey dëkk seen dëkk tubaab yi ba mu jóg. suñu ko defee am lépp. mais mënuñu di defar ñii di yàq. opposition bi di yàq. li ñu fi yàq yépp tey jii ku fi toogoon it balaa nga cee defar dina jël time te xaalisu Sénégal moo ciy demaat lu ñu war a defar. il faut que jeunes yi dellu si. surtout li ñu yàq nag li Macky Sall di liggéey ay lekkatu alal jour mën nañ cee liggéey ay milliards. Mhm. te opposition bi dañoo xiif mhm. actuellement nii. Mhm. nu ñu def ba jël pouvoir bi na xale yi. suñu fi toogee dinañu ko waxaat tey dencal vidéo bi yow. xamuñu sama nijaay xamuñu fu ñu teg seen tànk sax ñoom seen bopp. Sonko du nit ku war a yor réew ku yor réew doo jooy. du am d'état doo sàkku ndimbal. Mhm. Nelson Mandela vingt sept ans. Ah, yaayam dee na ci ginnaawam jabaram bàyyi na ko. Mhm. mu dëgër rek. dëggal boppam. musul lakkulu. Mhm. Nelson Mandela mësul lakkulu. doon xeex ak tubaab yi xeexul ak nit ku ñuul tubaab yi. mais Sonko. Sonko dafa lakkal sénégalais yi Sonko dafa tax yaay yëpp tiit Sonko indi na ci Sénégal loo xam ni yaay ak doom jubóowuñu jëkkër ak jabar jubóowuñu mag ak rakk ak euh, patron ba jubóowuñu mais Sonko Sonko Sonko na na toog foofu bu dee Sénégal noppalu ko ah ay nitam koy wax nañ ko ci bopp dañu bari yow voilà man gis naa démb am na benn live bu mag boo xam ne si euh, dafa àndoon ak moom mais bi ñu ko tëjee nee na biñ ko tëjee bu léegi Sénégal ci la am jàmm ok buñ ko fi génne nañ ko fi ba ca kanam ndax <laughs> parce que bu fi génnaatee parce que gisee ñàkk jom du ñàkk jom comme bu Pape Alé gi la gisee buñ ko bàyyi woon yóbbu ko këram trois jours laa la wax wala deux jours nga gis mu tegaat fii di live commencé waat woo booy c'est sûr dara dalu ko loo xam ni Sénégal dinañu néewal doole justice hmm. waruñu ko dinañu néewal doole justice Sonko ay nawleem ay nit Mm-hmm. ñu dul malaaka duñu wàlli duñu duñu xub du samaan mm-hmm. ñoo nekk ci kaso boobu ah, ba mu waree dem dafa yàgg si toom bañ ko jiiñee mm-hmm. tëj nañ ko fi six mois xaw ma dix mois Sénégal lay xanaa luñ lan lañ ñuy xoolee Sonko di ñu manipuler benn nit bëgg a ñëw ni dama bëgg a toog yor ah. sama réew seen ah. réew mi bëgg a rey suñu doom yépp ah. balaa moo toog dara dalu ko dafa bëgg a génn fit daal naat ñu dara dalu ko ñi koy wax ni ay dëmboo ak abib si teguñu ko bët bay wax dañuy soob Sonko nga ca jàmm di lekk ay fruits bon donc dafa leen a faale sax yooyu daal gis nga kura. dañ ko bàyyi man daal li ma bëgg xamal sénégalais. mooy manipulation la. manipulation bu ngan ci la ci lañ ko xamee. Sonko togon na fi ne gars han ah, man bama ma dama and ak ay feebari xeeti jangoro sama yaay def bu doon diw graisse yew pot bi sax wax nañu lu mu jar 3000 francs la ko yaayam doon jëndi ko ko diw Sonko wat ne amul ben xeetu jangoro amul insuffisance renal ne docteur bi yaangi ni tok ban xeetu jangoro la yor yorul dara et puis dama bëgg wax ben affaire sénégalais kuram may ma ben may ma ben seconde fof gis nga Italie Italie bi ma nek wala États-Unis bo nga nek voilà waaw déglu déglu ma wax ana jamanko il faut sénégalais yi baalal ko waaw kay moo dibóor moomu toog waaw kay li ma bëggoon wax ñoom nii lañuy ñuy mën a jouer rôle bii lañu ñu mën a jouer mhm. li ma ñu ay jigéen ñu dëgër ñooñu moom nee la gis nga dañuy tappale parce que aana fay na fayati fayati xam nañ nu mu bu toogee fi sama ñaari Ousmane Sonko xam nañ nu mu demee Sénégal nañu may jàmm Ousmane ñaari nit la ni mu mel ci biir kër gi mhm. ak ni mu mel ci biti du benn ñemewul kaña ñun ko ñemewul kaña munoo yor suñu réew Ousmane Sonko ñemewul kaña du yor sunu réew kaña daw na ko ñaari fan ci néegam dugg fa dara ay kaña yooyu yëpp yi lay <laughs> jiital saa yi ko Seysen di jël si Ousmane Sonko day ko gis nga ngeen di karaté di ñu won ni day entraînement. waaw kay te bu koy jël si mu ko voilà gis nga Koura may ma may ma benn seconde foofu gis nga karaté boobu gis nga Sonko bu doon. Mm. vrai leader la. tey jii gis nga bi ñu ko tëj bi ñu ko teyee fee cinquante cinq jours ñëpp naan dañoo barricade këram affaire yooyu mais Koura. Adji Sarr ñaari at moo ngi ñu tëj Adji Sarr librul ñu bari ma lañoo bari barricade këram liberté bi Sonko am Adji Sarr amu ko donc kooku parenthèse la woon bu ma ubbi ok mais li ma bëgg a xamal nit ñi mooy Ousmane Sonko ak feebar en tant que leader gis nga Italie bi ma nekk en États-Unis boobu nga nekk demal ci Europe fu mu mën a nekk un leader politique gis nga bu feebaree ñu yóbbu ko ci clinique gis nga. Euh, ki nga xam moo structure Bob? hein ah, moom mooy yeewu chaque jour Italie bi Berlusconi fan yee la génn àdduna de cela deux mois gis nga bu ñu clinique télévision internationale bi ñom ñooy ñew taxaw ci kanam hôpital bi chaque jour hmm? ki nga xam ne moo yor clinique bi nekkoon moom mooy génn defal leen lecture fan la état de santé am toll mi ngi wér wala tane na wala tanewul affaire yi yokk na wala defal nañ ko li defal nañ ko lee ñoom dañ doon wax wax ju demee ci noonu di ko euh, di ko di ko di ko di ko di ko di di ko leeral nit ñi mais Ousmane Sonko benn nit lañ gis muy wax muy sa copain bi borom karaw bu rëy gi mel ne xaw ma lu muy nduróol sen avocat bo nga xam ne sa xarit bi quoi <laughs> mi ngi dox voilà comme nga xam ne keroog bu ñu ko jàppee ci affaire moom moo toog ci ci ci euh, ci ci puus puus bi ñu yóbbu ko aéroport ba mu ne cëpp aéroport bu France ci la jóg ne coppet dem ca baar ba toog di naan café kooku mooy ñëw chaque jour di ñu rey di ñu tympaniser hmm? mooy avocat clé d'or xaw ma si lii xaw ma lan mooy Ousmane ngay bëgg a dee ci diggante dund ak dee ñaar fukki fan a ngi mu ñu koy wax Ousmane nga ne di leen dund docteur yi nga xam ñoy suivre Ousmane lutax mënu mënuñoo génn ñu wax ñu cadre clinique Ousmane fu mu toll lu tax waxu ñu ab avocat mom moy génn di ñu tankal hmm? dem ma deg Habib Sinan bayyi nañ Juan Branco mu ñew fi Juan Branco avocat Sonko la bimu mu fi la éliminer 32 avocat yi gëna ngand ci Sénégal ben sagaru tubab jóge fele ñi ñu doon bañ mom mo ñew fi taxaw ñu jàpp ko wàcc ko mu delluwaat te ci ay frontière la jaar di sol jëre jigéen ak lu ne pour dugg fii te ba mu ñëwee waxu fi luy défendre Sonko ay waxi boppam la fi wax daw ñu bàyyi ko léegi ñoom ña nga naan lu tax ñu bàyyi Juan Branco bàyyiwuñ Sonko mais sonk li ñu teg ci kawam mais moo ko def opinion internationale foo dem nga tegal leen lii mu def appel à l'insurrection yi génn leen nañ taal ray leen matal combat Macky Sall daañu dem génne ko ci pale ba dañ ko def comme Samuel Eto'o dugg na fi génn te buy wax da ngay gis muy wax dënn dënn lay waxe quoi waxu ku soxor bu ñuy wax ku soxor mooy Ousmane Sonko ci Macky Sall sincèrement buy wax ci Macky da ngay xool dënn lay waxe quoi tay ji nag jambar jooju doon ngand ngandul mo ñew fi wara jité mbolo mom moy taxaw di yalwaan di saraxu pour génn ci nga xam daf ne mo koy tejj bu ko hmm ñak jom mën na wessu li est ce que jom mën na wessu li man lima ma doon xaar moy entraînement yoy ñu doon wane biñ ko tejjé 55 jours yi mu ne len xol sama neeg bi na ngeen ma fi tagal ay poids damay def entraînement buñ ko woné won sonko di entraîner ci bir kaso bi ñu xam ne kii la quoi vraiment ah mais tàppat boo xam ne trois jours ñoom xurum xàq yu dee yu tekkiwul dara yi huit mois nga ci kaso ba Bassirou yi fay ñaata weer la def ci kaso dégg ngeen ko jabaram wala mu génn wala ay coow du ci am yaa rien mais moom mi mooy tàppet boo xam ñetti fan lañ ko teg muy deedeelu ma nga ci diggante dund ak deeg ma nga ca koomaa nangam nangam mais kooku nan la mën a jiitee am mbooloo projet bi ñu naan dégg naa Habib naan projet bi nangam nangam ba waa ji héros la projet bi bu dee woon tamit projet bi nang mais bu dee projet bi kan moo ko yóbbu ci kanam gannaaw ñoom moom lañ yaakaar moom ñu waroon taxaw bu dëgër fit wane ne may géré bi di entraîné ci biir kaso bi ba génn yóbbu projet bi ci kanam ni ko gëm loolu lañ waroon gëm mais bis bu nañ ña ngay sarxu naa ñu ko jox mais kii ko bëgg a posone kee da koy posone sëñ Moustapha da koy posone Macky Sall da koy posone ah, Marème Faye Sall da koy posone yu négatif kese la ñuy wax ci waa ji moom mu ne patt fee làqatu te kenn gisu ko daf nga ne lii gàcce la war a doon ci goloom yu toogoon fii di sab lu nañ yàq ko président bi lu nañ yàq ko jabaru président bi lu nañ yàq suñu xalif généraux yi et puis ñàkk fayda tey ji gis naa tey fee ci Genève fële ci Suisse Cheikh coro Mbacké yaa ñàkk jom ni ko benn waay waxee xam nga léeg-léeg ni naan la guy dana jur ay dëkk mooy loolu yow magal Touba ge sa mam nek fa <laughs> ñu ngi koy waaj safar 18 safar bi ah, ma nga dem di manifester ci ay sonko parti bo xamni ne existé y'a rien dafa nga ne ay manifestation yi def ay Genève ak ay pare yoy dafa mën a wat Pastef wala dafa mën a Ousmane Sonko fe mu ne Ousmane Sonko day dem tok dañ koy atte budé lañ ko teg du deug dina livre mais citoyen la comme ñep lañ koy teg bu fekké moko def ay manifestation yu duko ci dindi ay opinion international du ko dindi mo tok di wax sama gay moom mo tok di wax Senegal di ko deglu son ko di wax mhm. melni dañ ko xattal di wax ba sénégal yépp tiit nitu fitna yi rek ño andon ak ko ci wax yu reuy yi doon wax jaaxal sénégal yépp ci waxam mu rëy nii képp kuy politique dem képp kuy politicien ousmane sonko mu dina la jaaxal ci wax bu bari bu mi wax mu melni ko amul ay mbokk ah. mu melni ko amul dem na ba def yi état bi ne dañ ko ragal ak kenn ñu ko japp ko dara ko ñu bon na bon dafa xamul état rek lo tax man la du homme d'état bu xamul lu ci état tay mi ngi doog xam état waaw état bu wacce sa kaw di nga xam do dara xañu ci yenn rew yi asman nak ben samba boy bu tekkiwul dara yor lamiñam di ratatati tankal nit ñi ay projet yo xam kenn mun la li moy projet bi dara lu dul projet bi na ngeen lii booy yi dañ leen jox quatre cent mille par weer kenn ku ne ay fenn kese yoo xam dara taxawu ci dof yi nga xam ne si seen bopp yi dara gi ko ignorant yi mi ngi ko nekkal ci whatsapp yi da nga dégg boo leen dégg xam ni jànguñu jonguñu xamuñu dara quoi ay dof complet ñu nen ma nekkatuma murit ak nekkatuma tijaan ndax xalif yi waxuñu dugg na fi gerte xool waxu dof yooyu ndax politique ah ñii naan dañuy tëkkalee Ousmane Sonko no duñ ko tëkkalee sëñ Mountakha sëñ Touba lañ koy tuddee parce que li dalum sëñ Touba moo ko dal est-ce que xam nga mission bi mu doon dox la Sonko di dox mais ñii dañuy dañuy dañuy <laughs> non mais ñii dañuy dañ ñoo yàpp quoi sincèrement pas ba fi Sonko ñëwee ba tey lañ commencé manqué disrespect suñu xalif généro yi mosoo ko dégg. ñu wax ba teg ñu ñaaw mission Sonko mi bëgg la ñuy wax. ay Thomas Sankara lañ koy tëkkaleen mais ñuy waaye doom ay boo bootee fa nekk ak kenn xamul ñee dañoo am waaw yow non ñu dañu yàpp kura hmm? ñu yaradeku la moo ngi noonu yaradeku léegi nag bala ñuy tëj kura li ma la bëggoon laaj moom gannaaw jàll nañ foofu le choix du président parce que ñu bari ñoo ngi naan Macky Sall dafa am difficulté pour choisir Macky Sall nan lay préparer élection gannaaw ba à six mois taxawu ko ko man ma ne leen Macky Sall am na programme am déjà boo xam mi ngi koy dérouler ci euh, ñaari mandat yi mu fi def programme boobu ka muy choisir day ñëw mu kon ne donc moom programme pare na ñeneen ñoo war a lijjanti seen problème te bàyyi bu saal mag Macky lijjanti ko pare yow décision bi président walla jël wala jëlagu ko loo ci xalaat noo ko gisee ak yow boo sañoon kan la président di jël wala wa ilaa yow da nga wóolu rek bàyyi noonu quoi xaw ma lu ci sa xalaat àdduna bëgg nañ xam ku Macky lu mu xalaat ci loolu. waa man sama nijaay sama xalaat mooy boo yoree sa kilifa mu jiitu la ci dara nga jiital ko danga bu war a am kóolute ci moom président Macky Sall bu ñu doon xaarloo fii ba déwén dañ koy xaar te ku mu teg ci kàttanu sunu borom bi moom lañuy pare ne man ak yow ñoo yem mhm. président Macky senegal mhm. gépp mën nañoo seede ni mhm. du ñu ay kàkkataar non yuy soppeeku minit bu ne waaye nag dafa am dëkk bi lu ñu wax ñoom ñooy voté fu ma mën a dem wax naa ko ca groupe député yi dinaa ko waxaat fii Sénégal yëpp di ko dégg mm-hmm. fu ma mën a dem ci àddina mm-hmm. Amadou Ba lañ may wax mm-hmm. te nee naa leen président Macky Sall du cuune moom mooy choice mooy choose mais sénégalais yi ñooy voté ndax <laughs> Macky Sall du innocent day déglu day déglu askan bi tey nag moom laay déglu nag mm-hmm. aw ci choice moom ma ci dugal moom a gën a xam mm-hmm. mais tey mm-hmm. sénégalais yëpp ah Amadou Ba lañ may yónni ci président Macky Sall ak député bi député député yi mais nag moom am la ñuy déglu kilifa gi moom déglu te xam naa ne yow it moom ngay déglu. man kay man nee naa moom moo nekk ci profil bi. man moom xam nga yow député di gis di xool am sama carte am sama vote am ku may am ñu ma am nu may sonne dafa naa àdduna yëpp xam nañ nu ma sonne ci Macky Sall te fistinu Macky Sall. yow mi leer na mosuma billahi wallahi wa tallahi waaw kooku ngëm-ngëm mu ànd ak moom ci at yii yëpp ñu taxaw mais nag boo gisee nit di dox ak ngëm-ngëm hmm, kilifa gi moom mooy choisir def naa ne xam nanu ne def naa ne liy xew ci àdduna bi ak euh, Amadou Ba niñ ko joxe bopp ah gëm ko yaakaar ko man nii noonu laa ko gëmee moo tax ma ne man bu président choisir yi am choisir Amadou Ba mooy la ma gënal man Khadim Gueye bu choisiré kenen dina mhm. jàppale koku waye amadou ba mum duma ko faté koku dafa wara lèr bu ko choisiré nak lèr na ma ñu énergie énergie bi ma doon def ci Macky Sall dina ko def ci amadou ba pour mu yoral réew ma gagner au premier tour man je suis amadou ba bok mhm. sama bëgg-bëgg la mhm. président nak lamuy choisir moko xam amna ci droit ah, duma ko xàññi duma ma ŋàññi comme choisir ne rien mais buma sañon man du bo Macky Sall di dégg man Khadim Gueye son excellence mi la jappalé at yi yep yep yep bu sañon amadou ba ngay tek voilà ñeneen ñi awma ma lenn lu ma wax ko ci choisir tamit duma wax lu ñaaw ci mom waye nima sonné won ci yow duma ko sonné ci ñom lu leer lay wax bala ngay tan kok amna sama sañ-sañ ak citoyen normal yeex na tak, wax day am fay wax ni sénégal yëpp koy wax sama nijaay amadou ba ñing ko soxla fu ne koy wax waaw amadou ba premier tour waaw olof yi ñoo ko wax ñu ne paak do ko jitu ci mbaram jeex na mais lool du question mais kenn ku ne am nga droit am nga wax man ci sama carte la yor Macky Sall mën na choisir ku ko neex man bu ma neexé ma dem votel Amadou Ba wala ku ma neex c'est ça mais man sama gis-gis sama gem gem, man Macky Sall yorolu mo lenn euh, duma duma ministre situ député duma citoyen bu yor sama carte di vote képp la am naa sañ-sañu ne man bu ma sañoon Macky Sall du baax la may tànnal man ni ma sonne ci yow excellent dinaa ko sonne ci Amadou Ba doomu aadama yi jeex na voilà doomu aadama yi may gis voilà question boo ma laaj la voilà ñun la ñuy la ñuy moom la ñuy topp seen droit la mais sénégalais yi tamit comme député laa te askan bi dañu may yónni déglu voilà da ngay wax la yónnee ci ree ku mel ni yow ci sa télé bi waaw kay dafa nekk yóbbante boo xam ne dina yegg ci ci ci ñi ko war a dégg yëpp waaw kay ñoo koy laaj waaw kay waa nit ñi ñooy laaj Amadou Ba Amadou Ba moom la ñu bëgg président Macky sàll teg ma ne leen Macky sàll bi ngi leen di déglu waaw waaw président mooy ma wax ma ma wax président président mm-hmm. boo ma choisirul Amadou Ba président dimbali ma tegal ma Aïssata Tall Sall quoi nga indil ma président loo xam ne ñëw nga def Sénégal dégg loo xam ne benn président mosu koo def yóbbu nga Sénégal foo xam ne kenn ah, mosu ko yóbbu mais Sénégal yaa fa mën a révolutionner voilà nga indil ma président bu jigéen Sénégal président bu jigéen Macky Sall day wàtteeg day indi révolutionner Afrique Sénégal am président bu jigéen na doon ay Aïssata Tall Sall le ministre des affaires étrangères am na expérience ba mët na ko tamit war na ñoo dem ci tour bi jigéen ñoo am c'est normal ñu di war way mais jigéen war ko def ministre wala député kese président bu jigéen lañ soxla ay Mimi Touré yi yëpp sote nañ teg leen fee mais tànnal leen ma koo xam ne am na expérience femme d'état la askan bi nekk vrai yaay waaw kay xam jigéen ñi dinañu dina jigéen ñi tamit baax trop. mi ngi noonu donc daal pour mu ngi noonu nañ xaar président la lay décider ok ñun liñ war mooy signaler ko li nga xam ne yéen ñii député yi ngeen di dégg li leen people bi di wax ñun ñii di live di déglu ne ci groupe yeeg ne ci wax ak nit ñi di dégg ku ne ah Amadou Ba lañ wax jeex na peace and love maa ngi lay man ku ra Macky mi maay wax ak yow waaw kay maa ngi lay sant. man lii man maay wax ak yow réew mi dee laaj. Amadou Ba. jeex na kon nag. réew mi ma ko yónni fu ma dem ma ko man député bi nii. kon nag wax day am fin. Coura Macky maa lay sant di la gërëm di la remercier comme d'habitude nag ma nuyul njaboot bi waaw nag ma nuyul sama jarbaat Aïda Patra tamit de ko namm naa ko lool gëj naa ko dégg moom jërëjëf ak Mandiir nag ma nuyul Mandiir tamit waaw kay ak Ndeye Fatou Thiam nañ ko dégg macha allah Ndeye Fatou ko fàttali na ma ko nuyul mu baax boomu waaw kay jaajëf d'accord merci Koura jërëjëf waay ok gars yi ba ci temps yi yéen a ma gën a dégg Koura Macky mi noonu moom du may dara dëggam lay wax ragalul tiitul raful lim xalaat gëm ko loolu lay wax tiitu ci lenn waaw mook man mi ñoo yëpp chaîne bi nag Khadim Gueye TV la boo ci binduloon na nga ko def activer cloche bi nga xam ne vidéo boo xam ne dugal naa ko nga jot ko bu leen di xaar ma leen di yónnee vidéo yi léeg-léeg dama naa fàtte mënuma ko yónnee ñi may suivre ñëpp ah presque quarante mille personnes mënu leen yónnee ay vidéo donc il faut nga activer cloche bi ah mooy bu ma dugalee vidéo bi rek YouTube moo lay yónnee flash bi ne la xaarim dugal na vidéo bu bees nga ñëw seetaan ko la ko te xam ne lépp luy dëgg fi nga koy déggee fii moom ñiy dox dox bu dul bu yoon ay waa Pastef ex Partec yu kenn xamul fii du seen chaîne fii kenn du fi saaga fii kenn du fi wax lu ñaaw boo amee say saaga bloqué sa maam signalé sa maam lay def aw ma yow benn wax donc ni ma koy waxee toujours wax day am fa di nuyu ñëpp di ñaanal sëñ Muntaxa Mbàkke mu yàgg fii te di xamal sénégalais yi que ne ah sëñ Muntaxa ñoom ñoo dem wuti ko sàkku ñaan ci ñoom. sëñ bi li ko war moom rek lay def moom la xalif général de Tidiane de Layen de Niassène ñii dañoo am loo xam ne benn réew amu ko ci Afrique ñun ñu am ko moo tax kenn duñu mënal dara bu leen déglu mbaam yi toog naan dañ leen di saa di wax wax yu ñaaw voilà liñ koy def mooy yàqal seen waajee seen njaalookat bee ci biir kaso ba képp lii yëpp moo ko indi ci biir Sénégal avant moom yi amu foon voilà te yii ñuy dem sax di ko defal ay intervention gëmul yooyu tey gëmu ko suba loolu nag amul benn njariñ ci Sénégal dëgg dañ koy ñeme di ko wax benn journaliste ñemetu la wax dëgg parce que saaga yeeg menace yeeg di n'importe quoi ñi ñooy kan duñ dara gis leen kenn koo xam ne wër na waajooju nga mën na ma tey li tekki na ay c'est un porte malheur képp ku takk ci moom gis ngeen calculer leen ko na ngeen bàyyi xel ci numéro kenn ku ci nekk yaa ngi ci ay difficulté yaa ngi ay problème mooy loolu nit ki nag Sénégal ñu ko war a yor dañoo bari xool leen candidat yi taxaw yu góor yi yu jigéen yi ngeen choisir ku baax koo xam ne fit na du ko indi Sénégal ay appel ay mortal combat toutes ces choses là du fi am tànn leen ku leen neex muy ku féete ci makkee ku nekk ci opposition ba mais muy nit koo xam dana indi jàmm Sénégal ñu respect suñu kilifa diine yii nga xam moom lañu am moom la ñuy ñeew fu ne ci àdduna bi voilà te ku ci wax ak ci ñoom jëmale ko ci ñoom ne ci média yi nga ci wax ak ñoom yar ak ay teggin yoralu fi kenn bor yoraluñ fi kenn ay bor ku ci am sax réew de na ko téye yaag sa waajee ne ci biir tappalekat bee ngeen yor xam nga ne opinion internationale duñ ay dof ñi ngi seen ay ambassadeur ci réew ma ils sont assez informés renseignement yi xam nañ lépp donc seen mbalalal yeeg ay point de presse yu tekkiwul dara ay nit yoo xam ca Senghor ba ci Macky Sall mi ku ne langal nañ ko ku bees ku bëgg a ñëw bëgg a survivre duñ doylu jamais waaw jamais duñ ko doylu lu may wax mooy ay Habib Seck ay Aïda Mbodj saytaane yooyu dem leen ngeen julli ji ngeen jaamu yàlla day wax dëgg ay mag yu jëm ak seen bijaaw toog di kàcc ci devant le monde entier en opinion internationale dañ ci bàyyi xel mun leen fee ndax kenn pàcc benn peace and love guys dëgg fii la nekk ku mu neex baax na ku mu naqari nga yoxasu bu ma tooñ du ma la tooñ jàmm ak salaam wax day am fex